foofu foofu la foofu la fi nga teg sa baaraam foofu la foofu nuyu naa bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci gargot yi ñi nekk ci euh, géej gi suñu mbokki mool yi Tamariem maa ngi lay nuyu bu baax di jéggalu parce que démb dama wax euh, yaay yu Ndey Jóob yaay yaay Ndey Jóob Tamareem du xadi. Euh, donc leer na mais mu nuyu également les prisonniers qui nous suivent mais régulièrement. rawatina ñu nekk sa Thiès nag damay jot seen i messages. ak Kaolack. voilà euh, ñu nekk fii bu hmm? Rëbës bu euh, également maison d'arrêt bu Rëbës mais Thiès surtout vraiment ak Camp Pénal fii. vraiment régulièrement dañuy dañuy ku si nekk am na tur bu ñu la jox. donc vraiment ñu leen di di <laughs> leen foofu. waaw ku si nekk am na ku si nekk am na tur joxe ah? après ma wax la <laughs> est-ce que amoo fa ay soxna sax ñoo xam ne nii fa mu nekk nii <laughs> ay ay ay su ma waxee ay soxna loolu damay tooñ xam naa ne ci biir kaso dafa am ay soxna mais xam nga nit ki di nga ko di ko bëgg-bëgg boo xam ne nii mooy loolu. <laughs> ay ñu koy door a yéen a kaay groupe des médias président Macky Sall xam ngeen ne jamono ji dafa sóobu ci guerre sóobu si combat su ma waxee guerre na ñu koy yóbbu fu mu yeggul donc combat la woote combat euh, ci réew mi fu mu toll nii looloo tax nag yéen kaay bi andi ci larme bi réaménagement yi nga xam ne andi naka ci ne jëlee na fi euh, ab organisation la fi def ay lieutenant politique lieutenant yi nga xam ne ni ay politique dañ doon yëngu ci wàllum politique wala dañ ci doon cof rek fu mu nekk nii daa mel ni jot nañu seen wàll ay décret yu bari daal dinañ koy xaatim Souleymane Ndéné Ndiaye bokk na ca moom ci boppam dañu tekki ndombal tànkam Abdoulaye bii bi Baldé moom it bokk na si ñi nga xam ne tekki nañ seen ndombal tànk dañu abale donc poste kon am na njiit lu yees yéen kaay yeneen yi dañ ci dikk président Macky Sall ba tey nga ci doxantu nga xam ne amaloon na ko ci euh, mbedd mi sa géej waaye doon seeti ñoom Mamadou Fofana nee nañ ko nag comme te da ngay doxantu rek li ñu bëgg mooy nga doxantu ci hôpitaux yi jékki-jékki rek dem ci hôpitaux yi doxantu fa dugg bul tàggoo waaw jékki-jékki dugg rek op jékki-jékki dem dalal jàmm nga jékki-jékki dem euh, hôpital boo xam Youssou Mbargane nga dugg rek xool euh, waaye tawat ya nañu fay nekkee mais également liggéey ba matériel bu manqué bi jékki-jékki rek def noonu ni nga jékki-jékki dugg ci hôpitaux yi ñu bëgg nga jékki-jékki rek dem ci yeneen i dëkk fu si mel ni Tëngéej waa Tëngéej bëgg nañ ko doxantu fa ndax li ñu manqué bari na lool ndax tali yi euh, donc nee nañ danga nga mën di doxantu rek doxantu ba ci hôpitaux yi loolu itam dina ci baax euh, ba tey ci yéen kaay groupe des médias tribune Mame Mbaye Niang sama turandoo bi démb moo nekkoon invité seen show dikkaat na ci am ne si euh, Karim may Wade ndax Khalifa Sall moom wax na ca waaye yéen kaay bi it dafa ñëw ci l' accident yi nga xam ne ne meeku nañu ko ci circulation bi nee nañu nag ci diirug juróom-ñetti weer rek jàppale ni kon ci atum 2021 nee nañu 487 euh, ñoo ca faatu fanweer ñett ñoo faatu ci euh, euh, màggal gi si diiru juróom-ñetti weer fi ñu toll nii jàpp leen ne lu toll si juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñeent 519 ci ay doomu ñàkk nañu seen ak bakken El Hadj lii nag tës la tës la sa Jurbel ndax benn waay moom moo denc baayam ci biir kër ga mu dëkk. xam naa nag li nekk li tax mu nekk tës peut-être moo di def si amul autorisation ndax balaa ngay denc néew faw nga am autorisation en tout cas ci kër ga. si biir kër ga mu dëkk euh, maison familiale bi fala fa la ñu denc li nga xam ne moom mooy fa la denc baay ba xam naa tës bi nañ ci ñëwaat tey Axmaan Tulaay ci bundo élage euh, ñu euh, gëstu lan moo waral denc goog yi am coow vox populi dafa ñëw ci président Macky Sall nag na mu dégg tekkee ndombal tànk bii bi Baldé waaye bu ñu sukkandikoo si sama bokkub Tëngéej bi góor gi Yacine Boye syndicaliste la ci pos nee na kenn dàqu ko moom ci boppam moo sàkku ñu jëlee ko ci bopp poste moom Abdoulaye Bibi Baldé moom ci boppam moo sàkk ñu jële ko fa waaye kenn ndax ko góor gi Yacine Boye secrétaire général bu syndicat de la poste nee na nag euh, Abdoulaye Bibi Baldé moom moo démissionnel boppam nam sa yàbb sa ku sa ba max nga jël. ginnaaw ba poste. ba ba poste nërmeeloo ba noppi. mu gàdday dëgg mm-hmm. Mm-hmm. dafa dafa moom moo ko wax ci Vox Populi góor gi Yacine booy moo wax ci Vox Populi ne ñu ngi wax ne dafa dañ ko limogé non dañ ko dafa démissionné moom googu Yacine boobu mu andi information boobu donc moom moo jox information boobu taskatu xibaar yi. mais xam nga li El wax mooy dëgg. waaw dana dana nomination yi ñu jot nit ki démissionné waaw moom laa expliqué. ok da ngeen di ma expliqué la. décret bii génne. dañ ko fa jëlee. andi keneen. moom googu Yacine mu jël xibaar boobu jox ko taskatu xibaar yi. <laughs> donc li officiel danga naan ñun li officiel. mooy dàq ga li officiel mooy dàq ga voilà ñu ñëw ba tey ci li nga xam ne rek euh, moom mooy euh, bokk su populi ak nag président Macky Sall wàllum euh, dund gu cher gi moom dafa mel ni fu mu nekk nii xeex bi foofu la gën a bàyyi xelam de ndax nag sàkku na ci laata at mii di jeex si Aly Ngouille Ndiaye ma ñu dénk wàllu mbay mi benn plan bu nga xam ne nii suñu souveraineté alimentaire dañu koy daal di am ba mu mat sëkk moom mën a demal suñu bopp ci wàllum lu ñuy dundee moom euh, président Macky Sall sàkku na loolu ci kii nga xam ne rek moo di euh, Aly Ngouille Ndiaye plan ba nag na gaaw loolu lay xaar ci moom jaay laata mi di jeex le vrai journal dafa ñëw ba tey ci président Macky Sall si li ma doon wax tànk souveraineté alimentaire nee na nag Aly Ngouille Ndiaye euh, bal ba tàkk na laata ñuy dugg ci weeru decembre gi na plan bi taxaw na plan bi taxaw ndax nag faw ñu moom suñu bopp ci wàllum la ñu xam ne moom la ñu jëfandikoo mise en garde contre troisième waa yaanaa maa jógati nañu waayaanaamaa loo jógati nañu andi beneen bàkk campagne bi ñu lancé mooy bu ko sax jéem xaayaan ku dégg séeréer yóbbante galgal ubbul làmb bii bi balde dàq nañu ko euh, wala limogé tekki nañu doom dombal tànk sa poste loolu la euh, yéenekaay bi la vrai journal daal di euh, joxe ñu jàll ci Sud Quotidien Sud Quotidien dafa ñëw ci Ndakaaru Njaay bi ku mën a ku ku mën a seetlu gis ne kon Ndakaaru Njaay fu mu nekk nii fépp la ñu gas ay chantier yu nga xam ne nii euh, bu nekkul à l'arrêt it yéex na lool inachevé euh, da tax na nag tali yëpp ñu daal di koy gas duggal Médina pavage yi ñu su defoon yëpp gas nañu ko comme ay kaña euh, foo mënti dugg ci Dakar Ndiaye chantier berte bi tax na benn yoon baaxatul fu su nekk ñu ngi fay jàdd loolu nag tax na oto yi bari fu mu nekk nii ku dem aller retour ba faw nga dem gestu ji mécanicien ba source a sur ça dafa euh, ñëw ci euh, euh, ministre bi ak nag ñi nga xam ne mooy grève bu l'intersyndicale bu personnel administratif technique ak service université publique yu Sénégal nan la ministre bi def waxtaan ak ñoom ba ñu joué balle à terre kon nag seen grève ba tegani nañ ko ci suuf balle à terre Ahmed Aïdara nee nañ tóob ba nga xam ne moo ko doon yaaxal ndax te benn jegeñaaleem la woon suuf su a dikk na ci mu ngook nee na nag ñu ngi ko doon oowee aussi aussi aussi parce que dafa xaw fulu aussi xaw ma aussi ndax daal moom moo créé benn foo compte euh, euh, lu ko neex mu wax ko ci euh, El Hadj Ahmed Aïdara di joxe yenn information yi nga xam ne ku jugewul Ahmed Aïdara du ko xam donc nag nee nañu démasqué nañu ko moom waajoojee tur bi nag xaw ma aussi xaw ma aussi aussi la ah parce que dafa fulu ci ci ci est-ce que du aussi est-ce que du en tout cas benn jigéen ñaaleem la woon le soleil yéen a kaay da ngay dégg mu koy wax parfois. ah parfois moom am ku la jege koo xam ne nii. dañu koy xoolaat paaka ba lay ren sa waaye koy daas jox noonu. le soleil stratégie souveraineté alimentaire euh, mu mel ni kon nag fu mu nekk ni président Macky Sall lu ñuy dundee bay dundee gi fexe ba la ñuy dundee fii ci réew mi ñu dem ba man ka di ko euh, amal suñu bopp fii jarul ñu koy jéggaani en tout cas loolu la jox ni mission Aly Ngouille Ndiaye xamal ko ne nag laata ñu dugg ci weeru décembre bii. bëgg naa nga euh, soobu ci mbir mi te andil ma lu nga xam ne ni dina daal sama xel euh, te askan wi daañu si gis seen seen seen bopp ah. ñu euh, jàll ci le quotidien ak nag njiitu réew mi président Macky Sall wax na dafay voter contre l'annexion du territoire ukrainien Serigne Mboup ab interview la jagleel le quotidien moom Serigne Mboup maire bu Kaolack mi ngay xam ne ne kon wax fi dëgg neex yàlla bu ma kenn dugal ci mbiru politique daxalinu doxalinu politique boobu ñi neñ ñi di def wooteeg mbooloo ba noppi taxaw si genn ak wet nee na moom doxul ci yooyu dañ ko yónni yàkkamti ko ci loolu lay dox fu mu nekk nii l' observateur ñëw ci hydrocarbure ak nag alerte rouge bi nga xam ne nii ndax boo demee France jamono ji ña ngay rang sa station ya station d' essence ya ndax euh, carburant bu manqué loolu moom lu tar la fu mu nekk ñu ngi koy dund nee nañu nag soo moytul dana daal Sénégal de hydrocarbure bi nga xam ne alerte rouge la ñu nekk ci wàllum pétrole bi ah ndax ay bor waaw trois cent soixante quinze milliards suñuy koppar moom la bor bi toll waaw ci secteur te noonu moytul nag bor bi bu fekkee bi ngi fa tege ba léegi bee ba ñu xam ne secteur bi moom euh, euh, euh, léegi ñu wax ndem si àll de wala ay jafe-jafe rek day nekk àlla de dara du dox donc yéenekaay bi moom mooy dànqaaf noonu sénégalais ne nañ ci bàyyi xel bu baax voilà nañ ci bàyyi xel bu baax saltan sur le web mu ngoog ñi nga xam ne ñoo nekk ci web bi El Hadji Abdoulaye John dañu ko teg loxo gannaaw ab publication bu mu def ci général Moussa Fall donc yenn publication yi nga xam ne ñu koy faral di def mu ngoog bien boo ñu xam ne euh, ku ko defati rek yet ba mën naa dal sa kaw woolu nañu leen critique euh, dafa ñëw ci l'inévitable dernier virage ñu ngi ko doon waxtaanee sànq ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko euh, mu mel ni kon nag maître Khoureychi Ba démb ci i rajo mu ngay xam ne ni kon bu fekkee audition dana amit du doon tey jii ni ko tribune waxee woon démb en tout cas moom maître Khoureyssi Ba euh, loolu la joxe ni ab euh, information euh, l'indépendant ñëw na ci audition de Sonko le pool des avocats demain kon nag dañoo weddi ne affaire bi du tey jii l'évidence dafa ñëw ci nee ne Fatoumata Tall ay miiru ñing Yoro Moussa Diallo Abdoulaye Diop kon nag ñooñu utal nañu leen ba naa ba ñu leen jëlee ci nguur gi dénk nañu leen am na fu ñu leen teg nee ne Fatoumata moom la ñu yóbbu promise Euh, Abdoulaye Diop ma nga xam ne moom moo nekkoon ko sekk nërmeelu ñu jëlee ko fa dugal ko ci gouvernement bi ka Mamadou Ndione moo ko remplacé woon tey jii moom ka mu rem ka ko moom la dem remplacé ji. moom moo ko remplacé woon kon remplaçant bu remplacé remplaçant. non ñoom kay dañ dañ leen fa jëlee delloosiwaat. delluwaat leen kon nag COSEC ka fa nekkoon. moo delloosiwaat moo delloosiwaat ñuy xaar Mamadou Ndione kon fu mu jëm Aly Ngouille Ndiaye nag président Macky Sall mi ngi xaar ci moom euh, solution bu gaaw. Euh, direct news laat Yacine. John tëb na de ñuy xool en attendant fu ñu koy yóbbu Mamadou John bu Dias ñuy xool en attendant fu ñu koy direct news dafa ñëw ca ña nga xam ne démb euh, yaakaar naa ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom lañ doon bañ a gis ba dugal leen au frigo Amadou Ba li Guy Ndiaye Oumar Youm Mame Mbaye Niang dafa mel ni tey ñoo nekkaat au devant de la scène ndax nag waaw dañ leen dugaloon frigo génn nañ leen frigo fu mu nekk Mahmoud Saleme nga xam ne ñëpp dañ jàpp kon moo doon buur di mum moo doon buur di mi man de ah, après waa moo doon bu digum bi maam si bi laa ah donc moom ci boppam dafa mel ni moom moo jëm ci fu mu nekk nii ci suux mu ngi jëm si suux te nag yàggatul dara nee nañ convoqué nañ ko moom ci mbirum faux passeport diplomatique yooyee moom mu Saleh donc moom fa mu nekkoon fu mu nekk nii sa président jëlee nañ ko fa fu mu nekk nii euh, euh, euh, moom moo nekk ci li ñuy wax guuta moom chef de protocole boobu waaw ñoom ñoo nekk ci guuta gi kii kii euh, moo moo moo remplacé Bibi Baldé. mooy jeyte waaw. moo ko remplacé. Bibi Baldé maire Bunkile mooy. Euh. ayca kon baax na. am na ñaata weer 14. Hmm? waa li li li ko dese bariwul de. fii ñoom ñëpp leen si dese bariwul de pour ñu. séparé kii bi hmm. xam. bu ko jiitee ci fi jamono toll. jamono ji yëpp nouvelle technologie la. ni loo naa si def bay am xaalis. individuels yi di ko di am xaalis ay étrange di fi créer ay yango ak yeneen i nangam ak nangam. Mhm. poste na dox ni jamono yi doxee. wax na ma doxee na mu doon doxee. colis ak courrier daa xew yi. comme colis courrier xel xew yi dañuy SMS rek. taf taf ak mail économiste yi nee nañu recapitalisation pour la poste. Ah, aywa 8 heures 1 minute. alaaji ñu dem. yëkkati naa bu wolof njaay ne sàcc bu aju dafay bañ ko teen turbine yéen kaay ne ma président Macky day ma ngay waajal combat yéen a kaay des média bi ne ma moom Sall ngaari armée bi ci boppam la daal di organiser waat ay liet naa politique nag moom président Macky Sall daal di leen di indi ci làng gi niki démb turbine ne ma ay décret de nomination yu sakkan yoo xam ni moom président Macky Sall ci boppam daal dina leen di xaatim daal di organiser waat forces armées bi am na conseiller défense bu yees moom premier ministre chef d'état major bu armée de terre soppi nañ ko ay coppite yu bari yoo xam ni moom président Macky Sall day leen di andi waat ci l'armée bi colonel Abdoul Aziz Ndaw ci l'observateur ne équipe bu jeune la président Macky Sall indi te ma gis président Macky Sall andi leen xel mën naa dal ci ñoom de tribune yéen a kaay na ma yemu ca moom président Macky Sall it na ñoo ni ki démb dàq na leen Souleymane Ndéné Ndiaye dàq nañ ko Abdoulaye Bibi Baldé dàq nañ ko Vox Populi ne Abdoulaye Bibi Baldé day président Macky Sall ci boppam moo ko limogé dàq ko waaye nag ab démission la ko góor gi Yacine Boy daal di wooyee moom secrétaire général bu syndicat travailleur bu poste ministre bi nee na moom ci boppam moo xam ne situation bi neexatul metti na lool ci moom mu daal di woo président de la république daal di koy xamal ne banaa demam gii syndicaliste bi xamle ci ne moo gënte ndax dina tax nag situation bi mën a daal di jaaraat yoon xel yi daal di dal dal daal di amaat ca poste googee bés bi le jour daal di may xamal ne Mamadou Diayte day moo remplacé Abdoulaye Bibi Baldé ca poste googee tribune yéen kaay ne ma leneen a ngi nii de moom aide de bu président Macky Sall Maïssa Sele Ndiaye daal dinañ koy maintenir ba juróomi at ci kanam lan moo xew laaj daal di nay samp tribune yéen a kaay loo leen ci mënti xamite ma wax leen ko moy président Macky Sall daal ma ngay waajal kombaam Abdoulaye Bibi Baldé dàq na ko Souleymane Ndéné Ndiaye dàq nañu ko l'évidence yéen a kaay ne ma nee ne Fatoumata Tall ay meru ñing ak Yoro Moussa Diallo Abdoulaye Diop daal dinañ leen di wut fu leen feg booba direct news daal di may xamal ne ña nga xam ne nag dañ leen géddoon wàccu leen ko day ñoo ñëwaat ña nga xam ne nag dañoo amoon baat lool daganoon ci république bi daal di able Mahmoud Saleh ma nga xam ni dooleem bari na woon lool ci biir présidence la république nekkoon koo xam ne nag tabax yàq ñu bari seeni carrière ci biir APR moom ci boppam dañu koo tege boor mbir yi gën a tar ci moom gannaaw ba ñu ko wooloo tribunal ci coowal passeport diplomatique bi direct news ne ma coow li jeexagul de ndax bari na ñoo xam ne seen dënn daal daal di day fees soo moytul nag daanu yàbbil président la nga xam ne logal nañ ko ko gannaaw Mahmoud Saleh am na yeneen nu fipp goo xam ne dana laal président Macky Sall ki gaayam yéene kaay bi ne ma coow li coow li mooy dikkuk Ba moo daal di bouleversé Mahmoud Saleh ci coowal Ukraine ak Russie lii yéene kaay bi daal di may xamal ne Sénégal ci mbootaayu taxawaayu xeet bi wu ñuy wote mën nañoo jox Russie yenn ci espace Ukraine Sénégal noo la cay wote libération yéen kaay daal di dikkaat ci coowal Ousmane Sonko li ak suite ba teg Adji Sarr moom yéen kaay ko te kenn musu koo convoqué le ko déet programmé woon nañ ko ci alxamis gii woo Ousmane Sonko waaye audition bi ci boppam dañu koo daal di annulé critique yéen kaay ne ma loo ci manti dégg ñi ngi ci virage bu mujj bi de ci coowal Sonko li ak Adji Sarr li yéen kaay di may xamal ne coow li coow li daal ab pecc goo xam ni faaw mu am daaneel wax ja mooy saa tembe faaw ñu yëngal dossier bi li nga xam ni nag moo arrangé ñenn ñi ngir Ousmane Sonko nag dem wuy ji te loolu saa bu amee nañ sóoraale ni réew mi dina yëngu te bu yëngoo it fitna moom mënu caa ñàkk weneen peg bi moom moo di ñu jël dossier bi xam ne lu ca ëpp amu ca la ñuy wooye complot moo ca daal di nekk daal di tàbbal géej bés bu amee atte du am mbir mi day daal di seey critique yéen kaay ne ma am te des daal coow la koy jeexal moom moo di sànni dossier ba géej wala woolu Ousmane Sonko ci bureau juge bi koy waxtaanee ku ne xam foo daal di féetee libération yéen a ma boobu day coow yeeg téye mi ngi mel ni tulleeg maale ci biir réseaux sociaux yi El Hadji Abdoulaye Dione mi nga xam ne dafa def ab publication ci général Moussa Fall ak police donte nag daal dinay baalu ak moom jiital collectif bi défendre l'hôpital Aristide Le Dantec daal dinañ koy teg loxo saa si tembe mi ngi ci kaso ndongo Diop bu Pastef yéen kaay bi daal di may xamal ne ma nga ca garde à vue ci section gannaaw ab live tribune yéen kaay ma boobu président bu Sénégal day ma ngay doxantu waxtu wa xam ni ka doon défendre la daan teg jàpp nañ ko yéen kaay bi dee média bi ne président la Sall lan moo ko teree defub doxantu ci biir l'hôpital yi tribune ne ma président Macky Sall doxantoom ngi na ci boole l'hôpital l'hôpital Sénégal boo xam ne dafa daal di wopp ba maar day taali gars di feebar du ñu am fu ñu fajoo yenn saay bu ñu fajoo mu nekkub faatukaay santé bi ci réewum Sénégal daal di feebar gën a feebar sax malade yi nga xam ne ñoo fay daal di fajoo doxantu bi ñu wax ko te faatu mbaate dund ca l'hôpital daal la gën a jekkee l'hôpital boo xam ni saa si tembe ngir na ma la fajkat yi yéene kaay bi ne ma def seen kéemtalaay kàttan waaye faju gi nekk doom bu góor ci réewum Sénégal ndax ñàkkub matale laas ne ma mbaa xam nga ne ab étude xamle na ni fii ci réewum Sénégal ñett ñoo gis seen bët daal muuru ñaari ay soxna lañu tribune mel na ku naan maan président Macky day na def doxantu moomel ci tali bi tali boo xam ne lu toll ci juróom ñeenti bakkan daal nañuy faatu ci 2022 gi nga xam ne jeexagul moo Ranman moo bakkani nu ñuy def ba duñu rot ak ndakaaru jal jóob sàngomaar capital boo xam ne tali yi moom daal di fii jaar daanaka jaxan na ma la ndox yoo xam ne ñi ngi taa ndoxub taw yi ba tey jeexagul tali yu bari yi pax bari yu ruq gi dagg-dagg taw bi daal di xar yenn yi tali yu daal di bon daal di koy def ay ni de poule Sud Quotidien ne ma ndakaaru day jaar ci tali yi bu ko jéggi siraat gënee yombet bariwul boobu l'observateur ne ma coowal pétrole day léeg mu daal di jéggi dayoo ci réewum Sénégal lu tollu ci ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ciy milliards ciy bor moom la daal di yoreel ñenn ñi boo moytuwul nag secteur bi dina daal di taxaw yéene kaay bi ne ma baaraam ak tuuma nag ña ngi ko daal di joxoñ fond de soutien bi nga xam ne moom lan jagleel wàlluk énergie Dakar Times daal di may xamal ne loo ci mënti déggit coowal gaz moom doon na jafe-jafe ci àdduna wërngal këpp Biden moom ma ngi ci Arabie Saoudite Al Nahyan nekk ca Moscou Macron nekk ca Alger Olaf Scholz nekk fii ci réewum senegal coow li coow li mooy ko ne ngi bëgg a xettali sam réew Vox Populi dama réewum Sénégal ku ñuy xettali sa ngéem nañu jaaxle nañu jommi nañu ña nga xam ni ñooy boroom kër yi courtier yi ñi ngi dund lu metti loo xam ne nguur gi fas na leen ko yéene tegaat ci wàññi gi nga xam ne neñu dañ koy wàññi location yi lii kay daanaka weñub loxo la waxtu woowu inscription yi ci réewum senegal daal di yokkoonu ne cher lool ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi nag nekk ci ban jaaxle Cheikh Mboobu ko si deb na lii de dina tax élèves yu bëri niki ren jii duñu jàngi jaare fa nag faf daal di bàyyi jàng président bu union parents d'élèves daal di xamle ni inscription yi doon juróom benn téeméer léegi ñaari junni la te waajur wu ne am nga fi ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ngir mën a inscrire sab doom en tout cas réew mi métti na bés bi la journée dangaa demul mbëbës ba fekk fa ay xale yu ndaw yoo xam ne ña nga ca biir mbalit ma di fa liggéey Ibrahima mii juróom-ñaari at am nee na àddunaam yépp ca mbëbës la yam yenn ci xale di dund ak fitna seeni waajur mënatu ñoo teg loxo ci ñoom yenn kaay bi daal di may xamal ni ciglim lu tollu ci ñaari téeméeri xale lañu yoo xam ni nguur gi lu mu mënti defit mën na leen jël ci décharge bu mbëbës boobee ndax ay xale lañ yoo xam ne dañoo bàyyi seeni waajur bàyyi seeni am di jàmm bàyyi seeni jege ñaale dem di dëkk ca mbalit ma te di fa liggéey loo xam ni mën naa nekk ab danger ak yàqute ci ñoom ak lu mën a am mbokk yi nan ñaan jàmm te di yendoog jàmm